ay waay yëngal nga ca. gin gin gin ca. wax leen yëngal nga ca. gin gin gin ca. ay waay yëngal nga ca. gin gin gin ca. dëggal nga ca. Alxuraan buy naaw. Alxuraan buy naaw. Alxuraan buy Cartouche bëgg jàppandi ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex ñu ñoom ñaar ñu ngi ñoom ñaar ñu ngi ñu ngi ndax du ko daan Cartouche ak Gamé Deme laa ilaaha illallah waay waay ñaari xale yaa ngi yëngal ji waay laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Gamé Deme daan na ko Gamé Deme daan na ko Gamé daan na ko Gamé daan na Cartouche laa ilaaha illallah ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar ah Bébé Ama sànni na Ninki fayu na sut Bébé Ama jël na tànk Ninki jël na ko jël na tànk bi jël na ko jël na tànk Ninki ah Ninki la laa ilaaha illallaah génn na Bébé Ama kal na Ninki laa ilaaha illallaah daan na ko laa ilaaha illallaah xatar bi na ko Bébé Ama daan na Ninki laa ilaaha illallaah ba amul benn werante asalaamaaleykum waa Njaareem asalaamaaleykum waa Diourbel d'abord maa ngi nuyu ci bés bu tedd bi ki nga xam ne mooy Pape Ndiaye promoteur di nuyu ki nga xam ne mooy diriger CNG président CNG di nuyu waa Njaareem yëpp di nuyu bawol bawol yi fi teew yëpp pour la réussite de cet événement boo xam ne bii dafa war a sax Njaareem mouvement Diourbel d'abord nag dafa indi initiative bu bees tàq maanaam raxas lépp lu salte biir njaareem maanaam defaraat njaareem defaraat jikko yi maanaam instauré li nga xam ne mooy solidarité suñu biir incité jeunesse bi ñu ànd liggéey ensemble defaraat dëkk bi dëkk bi ni mu mel gis ngeen ko kenn du ko nettali sa moroom jafe-jafe yu metti la dund coono yi nag dafa jeex bi mouvement Diourbel d'abord yegsee politique bu bees politique bu ànd ak dëgg politique doo xam ne bi amul naxaate jeunesse bi aujourd'hui dañuy jëm ci élection locale ma bëgg yéen ñëpp ngeen daas fanaanal pour jële fi ndóol bi jële fi sous-emploi bi jële fi salte bi jële fi càcc gi jële fi luubal bi indi jeunesse bu bees tàq boo xam ne bi ay techniciens lañ ñu defar dëkk bi liggéey ko nga xam ne chaque mois dina am animation culturelle sportive religieuse éducative ñu doxal lépp loo xam ne mooy politique buy jëmale njaareem ca kanam may fàttali na njaareem ba dëkku Serigne Touba la dëkku Xaadimu Rasul la ñun ay taalibe lañ ki ñu gëm mooy Serigne Mountakha xalif général des Mourides ñu koy woo ci defar njaareem defar njaareem avec la jeunesse defar njaareem pour dàq fi politiciens yi nga xam ne dañuy saay-saaye dañuy lekk suñu alal duñ fi organiser benn manifestation boo xam ne bii ku ciy jógee di nga am loo yóbbu sa kër moo tax ñu ne mouvement Diourbel d'abord c'est une nouvelle initiative bu ànd ak dëgg ànd ak comportement bu bees pour promouvoir la lutte muy bëre bëre bii tey ku ko gis xam ne war ngaa kontaan waa njaareem yëpp kontaan nañ parce que manifestation bu mel nii gëj na njaareem képp ku fi jóge mbër mu fi jóge tey di nga am loo yóbbu sa kër mën a dundal sa njaboot pendant trois mois may wax ne ñun on est prêt pour soutenir la lutte avec la jeunesse mais ni ñuy soutenir la lutte mooy chaque trois mois engagement Diourbel d'abord lan la chaque trois mois danañ def gala de lutte fii ci stade bi Pape Ndiaye promoteur ak yeneen promoteur yi fi nekk ak CNG loolu engagement mouvement Diourbel d'abord la ñoom buñ ko deful ñun danañ ko def yëngal dëkk bi ñëpp di ñëw fii di bége ku nekk am loo yóbbu sa kër suturlu pour que xale yi toog bañ a dem jël gaalu looco yi pour que xale yi toog defar dëkk bi pour que jeunesse bi ànd mobiliser wu am liggéey pour que ku nekk ci li nga xam ne mooy politique projet et programme ñu teg ko nga gis ci sa bopp. réveil des consciences dafa jot na ngeen yeewu na ngeen xam ne seen doom màgg na muy Pape Thiam inspecteur des impôts et des nekk Dakar di liggéey waaye bawol bawol laa ñoo bokk ndey ñoo bokk baay li may wax c'est un cri de cœur su ma koy wax sama xol day tooy njaareem li fi nekk dafa bon dafa salte nañu jóg ñun ñëpp uude yi artisan yi chanteur yi ku ci mel ni Maysa Mbuub ku ci mel ni promoteur yi ku ci mel ni acteur culturel yi communicateur traditionnel yi ñëpp nañu jóg ñu defar njaareem parce que ñii ñu gis naruñ jëmale njaareem kanam ñii ñu gis ñu bàyyi leen fi ay at defuñu fi dara stade bu mel nii xam nga ne gàcce la stade bu mel nii xam nga ne gàcce la nañu ko waxta dee njaareem dafa jot ñu jeunesse bi ñu jóg mobiliser wu c'est un cri de cœur que les politiciens nañ ñu dégg bu baax dañoo am njaareem te njaareem la am ku ko defarul danañ ko defar man cadre laa maa ngi liggéey administration waaye sama xel sama xol sama énergie sama xaalis sama lépp laay dépenser pour njaareem bawal ca kanam dëkkub Xaadim Rasuul ku fi jaar da nga war kontaan jërëjëf maa ngi sant ñëpp di leen gërëm di leen wax mouvement Diourbel d'abord avec la lutte pour toujours et pour toujours. mbokk yi grand baa ngi noonu doomu Mbakke ak Cheikh Niang Cheikh Niang moo leen féete ndeyjoor doomu Mbakke moo leen féete seen càmmoñ Cheikh Niang doomu champion ba Boy Niang doomu Mbakke di mbor bu am technique mbor bu mën a bëre arbitre tey di dimanche 23 mai fii ca Sodiame Limanel Fall drapeau Pape Thiam président mouvement Diourbel d'abord organisé par Papa Ndiaye production Cheikh seen droite ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Cheikh Niang ko tey amul lu mu tak lu weesu ngembali ak sangoor yi ci ñu ngi lewaatoo ñaar ku nekk di xool sa morom lawum fa mu góor la ndeysaan mbokki wasaare li mooy grand li mooy grand combat bi ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar doomu Mbàkke daw na jël Cheikh Niang jàppante ñoom ñaar ñu ngi xeex Doomu Mbacké dugal na ñaari perkel laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah Cheikh Niang ne ma dinaa bëre dinaa xeex Cheikh ak Doomu Mbacké Cheikh Doomu Mbacké ñu ngi lewaatoo ñaar doomu Mbacké Cheikh Niang jël na ko ñu ngi xeex ñoom ñaar ñu ngi xeex doomu Mbacké dugg na Cheikh Niang jàpp na ko jàppante nañ jàppante nañ Cheikh Niang am na ci ngembali Cheikh Niang jàpp na si ngembali doomu Mbacké jàpp na si ngembali ndeysaan la ilaha illallah doomu Mbacké ak Cheikh Niang Cheikh Niang moo wan ginnaaw Doomu Mbacké dugal na bergel léegi Doomu Mbacké dugal na bergel sànq ñu ngi jàppante ñoom ñaar Cheikh Niang doomi Boy Niang ak Doomu Mbacké ndeysaan waa Mbacké ñëw nañ ak seen feesal seen turbine waaye tamit waa Diourbel bàyyi wu ñu leen ñoom it feesal doomu Mbacké dugal na perkil léegi waaye Cheikh daf ko korosé ca kaw loolu moo bolokee doomu Mbacké ba pare def ndengeñ waaw ndengeñ moom day bolokee Cheikh ñang dugal na perkil doomu Mbacké door na léegi bu dal ñu ngi lewaatoo ñoom ñaar Cheikh Niang ak Doomé Mbacké ngal bopp bi daf yëfu géwél Cheikh ak Doomé Mbacké Doomé Mbacké cokkaas na léegi ndeysaan géwél yi dong ngay dégg ñuy woy stade baa ngi ne salaw dul géwél woyut Cheikh Niang Doomé Mbacké Cheikh Niang ak Doomi Mbacké ndeysaan Cheikh Niang Doomi Mbacké ñu koy lewaatoo lamb janga noonu la ilaha illallah ñu koy yóbbu seen bopp ci digg géew ba Cheikh Niang ak Doomi Mbacké Cheikh Niang ak doomu Mbacké la ilaha illallah doomu Mbacké jël na Cheikh Niang doomu Mbacké jël na Cheikh Niang Cheikh daan na Cheikh Niang doomu Mbacké daan na Cheikh Niang waaw doomu Mbacké daan na Cheikh Niang la ilaha illallah le respect ak la violence ak l'agression pour que lamb gën a c'est que mën ngeen xumbal xumbal affaire góor la mais bu jeexee jeex na kenn démérité wul ñu ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. incha allah incha allah incha allah. moo amoon doole. ñu ñor jeunesse bi ñu am lu ñu yóbbu seen kër moo ñu ñor xam bu xeex bi jeexee jeex na mais li nga yóbbu sa kër dundal sa njaboot loolaa am solo te yaa ko ñàq donc ñun dañuy def pour ngeen am lu ngeen yóbbu seen kër. ñu organiser làmb ngeen daan seen doole pour que ñëpp toog bi bëri bawol parce que li ngeen def ni dafa neex ñëpp toog di leen seetaan pendant deux heures trois heures de temps ngeen ñu bégal donc loolu bu leen ko yàq incité leen xale yi ñu dal ñu ànd jàmm ñu defar dëkk bi ensemble donc ñun on la pour la jeunesse man bu ma la magul yow magoo ma donc dañoo ñëw pour defar dëkk bi ngeen jàpp ci voilà drapeau bi nag ci le mérite sama waa ji démérité wul aussi. passe ak moom passe ak moom jox ma sa numéro jox ma numéro 76 76. Mbër yëgal si kaw soo paree. ñoo bëgg a def événement bu mag Mbàkke Bawol. non non mbër waa bu mbër yëgal si kaw yëgal si kaw police

journée bi nii mu demee muy suñu première journée wala def mu nekkoon le teel a war na doon Covid bi téye ko bu suñu borom dogalee ñu am yaakaar ne wàññeeku na ba tax préfet mu digal ñoom président daal ñu ko digal ñu ñu commencé ak manifestation ci la jàppaat date bi def ko rëccuwuma nag fi ma ko indi muy après julli dix jours après julli ñu nekk la manifestation ñuy wax rek man mënuma sant waa Njaari mu leen di ñaanal ma leen woo ñu si semaine passée la woote théâtre de Béni indi foofu ak ñaar allah ñëpp ñëw ay kilifa yu mag ñëw toog fa jëmbal bis bi ba 5 heures du matin ñu ñibbi tey ma xëy woowaat leen dans une semaine ma woowaat leen ñu ñëwaat fekk si waat kon mënu maa fay wàññi dara ba léegi ñu àndal rek yàlla fayal ma leen di ñaanal wér ak ay xéewal nga xam amee xéewal lu ma leen woo dem ba ah bu mu nag. ma sant mooy waa presse ndax sama ñaari journée yi muy muy làmb muy làmb tey jii ak xam euh, ne ñaar ba fa andi woon presse bi liggéey nañ ci liggéey boo xam ne gis naa ne moo tax mbooloo ñu génn ñi ñu génn ndax kuy xeeb presse da nga xamul presse man de du ma xeeb presse ndax depuis quatre vingt dix ba léegi maa ngi maa ngi def ay programme maa ngi ci manifestation yi kon damay jël lépp delloo ko presse bi njukkal ne la yëpp lii lépp yéen ndax liggéey nga ci liggéey boo xam ne nii tax na nit ñi génn nañ génn boo xam ne nii bu doon doon rek nit ñi bu ñu génn gaa teg naa ay journée yu baax macha allah ndax Cheikh Ndiang Gris Bordeaux combat spécial yi combat ba ci sixième combat yëpp ay combat yu neex la waaye nag nit ñi vraiment génn bi moom man vraiment am naa ci mbégte lool naa ci mbégte journée dix combat dès le début di ngeen dégg am na ay partenaires yu may lijjanti jàpp naa ne jubóo naa ak ñoom. ah waaw di leen mën samay journée yi ma jëm. dañ yàlla suñu taw fexe tey jii nga xam ne amul lu yaram lañ dëkk te dañoo bëgg a développer sport bu soobee yàlla. lu waraloon teewaayu Sidi Diakhaté tey. Sidi Diakhaté tey suñu collègue promoteur suñu xarit la nekk Thiès di ko yëngatu bi ñu defee journée bi ñu yëgal ko mooy dina ñëw seetaat si. te nag defe naa seetaan bi ki mu seetaan si réccu ko ne taxawal na fi combat. Hmm. gis na fi ñaari boo yoo xam ne mu taxawal leen war leen a yóbbu Thiès loolu la ñuy doon promoteur ndax génn ba muy génn day gis loo xam ne lu koy mën a tax mu yóbbu ci am na ko fii tey jur muy guy gi ak benn mbër bu dëkk Thiès am na Cheikh ñu taxawal leen fii tey pour yóbbu leen yóbbu leen Thiès pour tëgg leen loolu nag fierté la ci man ndax man mi organisé bis bi waaye su ci mën a déggoo Siri Jaxate mu mën a def loolu loolu mooy def na collaboration ak waa Wassare xanaa am ci ñoom ndax wasaare defe naa wasaare lamb may booy loolu yéeme na beneen bi sama doom la bas mii sama doom la lu ne laa def bu ne laa koy woo xaaju guddi 4 heures du matin 6 heures du matin bi heure bu ne woo naan moo def bande annonce euh, ma ne ko bëggee wu ma ko nii ma defaraat ma benn waat ma ko kon nag vraiment dañ koy ñaanal di ñaanal gis naa ko ci bis ñëw na muy ci def ak xaana di magam moom di peeram maa ngi koy remercier di remercier promoteur yi ñëw yëpp am naa ci ñoom dëgg lool lool lool di leen sant di leen gërëm di ci parrain bi muy Pape Thiam gis bis bi xam ne taaral na ko cinq talon vie la jënd muy cinq cent tickets ñëpp mu sol leen ay tickets rempli stade ay sa ñi ngi ñu koy remercier di remercier sama xarit bi. Tafa Tafa ci nga xam ne opérateur économique la jógee ba Dakar nekkoon mbër ba bàyyi ne damay delloo làmb njukkal mu jëf jëf bu rëy jooju te nee na mbër bi daan dina ko jël en charge mu nekk këram mu yokk saison bi lëmm muy entraîné mu ne mu ne koy jàppale engagé na tamit ne dina jàppale làmb Ndiaye fii la ko waxee bi ma koy. wax parrain bi la ne ma su ma ñëwee Ndiarème dinaa ko jël ay engagement pour jàppale wax comme ni ko Pape Thiam jëlee man daal maa ngi sant waa Ndiarème am ma am ma ci ñoom frontière te mënu ma leen a fay ma leen baale yàlla rek. jërëjëf di leen sant baal di leen gërëm. merci beaucoup mon frère di sant jarbaat bi. booy bu ñaaw bi. Baol News waaw Baol News. moom boo boo boo gisee. tàllal ko micro bi. di bas moom moo defar vidéo yi sama sama bi moo defar vidéo yi di ko sant bu baax lii mu Baol News bi partenaire la ci gis bii bu ngeen xoolee drapeau yi mi ngi ci. bu ngeen xoolee drapeau moom maa nga ca man Pape Production wax dëgg yàlla ànd liggéey bu yàlla sunu jaraat bi suñu xarit bi aywa merci beaucoup mon frère.